ami maa ngi lay fay mais l'incontournable ëkk rëy mais maa lay bëggee <laughs> rek maa la ko tuddee da nga koy lay ziar di la balu àq xaw nañu a na solo di baalu ñi nga xam moom ñëwaatoo man hmm. nag ñëwaat naa fi depuis lundi ñëwaat naa mais et demoon naa ci weekend bi ci àll bi ci lamb mbappat yi kon ñu ngi leen di balu rek ñoom téléspectateurs yi di leen ñaanal jàmm hmm. di ñaan yàlla seen poche yi di gën a am dara parce nag budut ñoom hmm. du sotti te olof a ko ah, wax ba man di jënd connexion feccum liir bu neexee nday caa jàpp sa mbagg ya am ah, na solo noonu la fa demee <laughs> euh, ñu dem seetaan li nga xam ne moo di revue bi daal di del si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 19 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk moom ñëm ca xëy fesal bokk na ci ki xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon ak ka nga xam ne nii bëri na ak moom waaye ka nga xam ne moo dégg roi ba nag moom moo di bombardier mu nga moom nag la yëglikaay bi xëy tey daal fesal ci xëtam mu njëkk mel ni ki nag bombardier daal xëy tey di wax moom moo di ba di ab entraîneur am di mbay booy mbay booy daal tey moo xëy dal ci Balla gay numéro 2 ba Balla gay yëg ko dal ci ñoom Aziz Ndiaye maanaam bàyyiwul kenn la mu xamle daal moom bay booy bokk na ca nee na bu dee wàllu mystique la nee na Balla gay di jinne ya mu ya mu yore maanaam jinne ya koy gunge ci làmb dañoo ragal ka nga xam ne nii moom moo di Bombardier ñu ne ko déet waay mbay mbay ne maa ko wax de te Balla xam na li may wax Bombardier xam na li may wax mbay ñu yaakaar fa yem mu ne te Balla ñoom Aziz Ndiaye ñoo koy jéem a puus di ko toñ di ko pousser ci kaw Bombardier te Balla physiquement maanaam ñi ma ñut nga xam ne nii moom moo di Bombardier nee na nag ñoom Aziz Ndiaye nee na ñoo koy dooleel daal di ko jéem a wax ne ko daal yaa man te itam daal wàllu mystique ba bu ca tiit loolu mooy loo xam ne ni daal moom la mbay booy tey xëy wax mel ni kii daal mbay booy tey soo bëggee dégg-dégg ngar daa joon a yëglikaay bi di sunu làmb wax fa lu yaatoo yaatu diggante ma ka nga xam ne ni moom moo di Abdoulaye Dembélé ci ab interview boo xam ne bu yaatoo yaatu la keneen koo xam ne nii moom itam daa mel ni day bu fekkente ne Balla gay daa ragal Bombardier ca la mbay booy wax est ce moom itam ra Bombardier ragalu ko muy tafaatin yëglikaay bi moo xëy wax ko de samp loolu di ko laaj ne na seen combat démarché nañ ko maanaam Gaston Mbengue mi nga xam ne nii fi mu nekk nii mu ngi doxal lu baree bari ci làmb ji daal wër na boobu combat laajte ko maanaam dox ko wax ak mbëri waaye Tapha Tine moom ca côté am na pare na ngir bëri ak Bombardier may ko ramas waaye Bombardier daal daa mel ni fi mu nekk nii moo mel ni koo xam ne daa am lu muy ragal wala boog lu muy calcul moo tax yëglikaay bi di laaj na est-ce que Bombardier mii ah amul loo xam ne nii daal mu ngi koy moytu ci ka nga xam ne ni moom moo di Tapha Tine Gaston Mbengue ma bëgg combat ba tamit wax na de nee ñeme de loolu mooy li nga xam ne nii daal moom la ñu yëglikaay bi xëy tey wax ci xëtam wu njëkk keneen koo xam ne nii moom mbër la nekk ci làmb ji di seex super jamono te bëriwun fi combat ba moom mi nga xam ne nii moom moo doon ak capitaine Dina te mu ñàkkoon combat ba te ñu dammoon siis te mu soloon ay dàllam ñëwaat jël ay matériel am monte siis ñu dammoon yépp moom mbër ma la mu xëy nag di wax moom Seex supper Jamono nee na nañu xam ne mbër yi du ñu ay dof tey suba waxi noppi ay nit njaay lañu xanaa kay des fois ay rax day am dugg ci seen biir di jaxase ak di yàq keneen koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg ay defet sonal na ko fan nii muy ndandi fall yëglikaay bi ne na ñett yu teglantoo la def moo tax nag sunu lamb di ñu xamal ne daal ndandi fall fi mu nekk nii day ah le 5 juin bii mu jëm daal soo bëggee dégg dëgg daal la ko ca war mooy jéem a daan rek maanaam daal daan daal moo ko ca war yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu digganteem ak ka nga xam ne ni moom moo di daam seen sunu lamb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom maanaam ci écrit la jóge dem ci beneen écrit muy sibel ma nekkoon écrit Ndakaaru te léegi nag ku ne xam na ne Fass ak Ndakaaru benn écrit ba la ñu naan ko Fass Ndakaaru Siwel nag moom mu ngay indi ay leeral ca la tax mu dem fekki Amadou Kati Diop ci écrit ba nga xam ne nii moom la ñu sanc bees wala boog mooy ànd bu bees ba nga xam ne nii moom moo dox ci diggante waa Fass ak waa ndakaaru yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci drapeau Sénégal ba tamit daa mel ni fi mu nekk nii ñu nga cay waajal wala boog ñu ngi ca réglage yu mujj a mujj ya yëglikaay bi xëy na ñu xam ne daal soo bëggee dégg-dëgg daal ka nga xam ne moom moo di selemele ma ngeen xam mu dëkk campement ngeexoo daa mel ni nag moom daal bokk na ca juróomi mbër ya nga xam ne nii ñoom ñooy défendre drapeau waa Kaolack waa ndakaaru moom fi mu nekk nii ñu ngi ci ak tànn yëglikaay bi ne fi mu nekk nii daal soo bëggee dégg-dëgg daal seen neuf litres daal la ñu sélectionné di tànn ñan la ñu war a jël yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko Omes Diagne nag moom ma nga xam ne moom mooy directeur technique régional bu Ndakaaru daal la mu xëy xam ne daal nee na boo sàgganee wala boog ci fan yi ñu jëm ñoom fa ñu jëm mooy ceeb regroupement boo xam ne dañu koy tëj maanaam regroupement fermé yëglikaay ba moo xëy ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom mi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mel ni ki ba tey bu nu continuer ci yëglikaay yi dem fa nga xam ne nii nag moom moo di record record nag moom tey ka xëy du kenn ko dul paate si la ma ngeen xam di président écologique Mor Fadam paate daal la mu xëy xamle te ku ne xam ne ne paate itam fi mu nekk nii moo teewal moo get ci wàllu làmb structure moo get ba daal bay taxawal làmb ya paate ko yor di ca doxal di ca wax paate nag moom la mu xëy wax rëy na ba yegg ci lool ndax principal jaxate daal la mu xamle nee na pare nañu ñoom ngir teg deux cent millions maanaam ñaar téeméeri millions ci taabal ji lit simple waaye lit simple ba nag na muy demee nee na jàppal VIP lay doon de ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye ñoom Eumeu Sène ñoom Modou Lô ñoom Gris Bordeaux ñoom Lac de Guiers ak ñoom Tapha Tine ak ñu mel ni ki ñoom daal nee na bu ñu bëggee pare nañu ngir tegal leen deux cent millions fi nga xam ne ni moo di arène national ñu ñëw seq ko bëre ñu xool ci ñoom kan moo dàq bëre ak itam kan moo dàq def get moom soo bëggee dégg dëgg président Pata Sylla nee na ñoom pare nañ fi mu nekk nii jatu soccet deux cent millions yi daal mu ngi tege su VIP yi pare ñu tegal leen ko let simple kon VIP yi jël leen li simple bi gars yi dañoo bëgg a xam ku ci man ka ko bëgg nag du kenn ku dul moo get ak structure am ba nga xam ne nii moom la yore waaye démb dikkaloon naa leen ci ay photo ci li simple ñoo xam ne ñu ngi cay wane seen bopp waaye yëglikaay ba continué na ba tey indilaat ñu ko moom sunu làmb ci ñuy wane seen bopp ci lit simple ba Ibou Ndiaye ubbali ca la bokk moom Mamadou Faye ordinateur ca la bokk Batista numéro 2 bu Pikine ca la bokk général Malika itam ca la bokk sunu làmba def tey lu mel ni ki noonu waaye daal daa mel ni fi mu nekk nii làmb ja moom loo ci mën a dégg mu ngay sàjj bu baax a baax te itam nag mu ngay waaj a sàjj lii nag moom ci kër gi la xewee maanaam ki mu dal ci kër gi lay liggéeyee muy Equivox di ab caméraman ñu koy wax Gomis taalibe Bamba Gomis nag li ko dal daa metti lool ndax mbokkam moo xam ne ab dëkkandoom la xel ma xaw a wéradi ñu koy wax Mariama jàll dëkk ca Gosaas mu réer ay mbokkam boobu ba tey ñu di ko wër kon nag daal képp koo xam ne gis nga Mariama Diallo moom moo nekk ci photo wi noonu ngeen koy gis ku ko gis ngir yàlla wowal ay mbokkam ndax nag ay mbokkam ñu ngi koy wër faw ma jox leen ko bu la neexee da ngay def 77 360 22 81 beneen numéro bu mooy 77 183 47 46 kon Mariama jàll yal na feeñ ak jàmm képp kuréel itam yal na nga feeñ ak jàmm olof Ndiaye ko wax ko xalam de ca jaayu te gumis ci kër gi la ne nag. ay Aïcha am na solo ñu daal di ko doore nag euh, journal suñu làmb Babacar tey xëtam bu njëkk. kañ fa mhm. gis rek moo di Mbaye booy nekk euh, coach ci ki nga xam ne moo di B52 de Mbour. moom mhm. nee na les jeunes de Balla Gaye 2 ont peur de Bombardier maanaam jinne euh, ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 dañoo ragal Bombardier. <laughs> waaw man day xam naa ne wàllum jinne moom mënuma caa wax moom Mbaye Boy nag moom mi ko wax xam na ko ndax man mosuma gis jinne. Mm, mosoo gis jinne non non non yàlla. Ah. man daal am na loo xam ne moom. Hmm. du ma ca mën a sori waaye bu ñu waxee ci cadre sport loolu moom mën naa see wax mais affaire de jinneeg yooyu moom hmm. xëy na ñoom ñi ko séq. wala moom mi ko wax ah xëy na xam na lu tax mu wax ko. comme ah. jinneey bàll jinneey bàll yi ñemewuñu bombardier hmm. ah le 31 juillet yaakaar naa sori na soreetul yàlla nañ ko fekk te ko suñ ca yeggee daanu xam fan la wane di mu jég ay bëtam waaye daal xam naa ne combat capital la mhm. combat bu rëy rëy moom moo nar am le 31 juillet muy Balla Gaye Bombardier mhm. ñu nuyu le promoteur suñu père Gaston Mbengue mhm. waaye xam naa daal mbay booy moom ah tey day xëy na ci suñu làmb ak doole de am na solo ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye dafa mel ni def na réplique de moom itam nee euh, da koy jox courage ci li nga xam ne moo di mystique bi moom mbay mbay moo ne da koy da da aye mbay moo ne Aziz day joxe courage day jox courage Balla Gaye ci wàllu mystique waaye Balla ne na physiquement dafa ragal bombardier ah. waaw ba tey loolu lépp mbay ko wax ci bi journal bi muy wax yoo xam ne daal fi mu nekk nii bataille la ci wàllum communication mm-hmm. xeexu làmmeñ mooy jëkk am balaa làmb ji balaa bi di siffler mm-hmm. loolu nag moo ko làmb ñoo ànd ku ci nekk da ngay jéem a déstabiliser sa adversaire mm-hmm. si ay kàddu si ay wax si jàppal bàyyil pour bés ba waaye xam naa nag bëriwul nañ daal Balla ñàkk ñu war a bëreewaat am na solo yaa ngi dégg Bombardier nee na dégg moom moo a ko wax si micro. Mhm. Balla maa dégg ci làmmiñam mu ne wéru muun moom ñeneen nag comme man maa dégg wax boobu bii yoon dama mhm. koy ñaanal yàlla mu wér. Mhm. ah ñun nag ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk nekk sa au top maanaam nekk au top pour bés ba. ñu mën a jàkkaarloo. bëre xeex. jàppante ñu xool fan la jëli bi di mujj waaye xam naa daal mm. la ma la waxoon rek combat la de mm. mm-hmm. ah baax na yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm amiin amiin euh, nga xam ne nag moo di Tafatine euh, revanche bi ki nga xam ne moo di Père Gaston moo ko daal di démarché Tafatine moom côté am ok mais Bombardier daal ba tey euh, waxagul ci mbir mi dara waaw loolu moom moom lañ sunu làmb xëy tey jox comme ay xibaar ah, parce que boo boo xoolee ñu ngi wax seen combat mm-hmm. dégg nañ ne Père Gaston bëgg na ko te Tafatine nangu na ko te Bombardier ñoom ba tey ñu ngi kii daal nangooguñu mm-hmm. loolu bokk ah. mhm. parce que ñoom ñaar amoon na fu metti fu ñu jaaroon. ca mhm. stade Demba Diop Tapha Tine gagné ko par décision médicale. Mhm. parce que kenn yaakaar naa ne la fa am ci combat wax dëgg yàlla dawoon na yaramu képp koo toog ku toogoon ci télé bi di seetaan wala nga nekk ci biir stade bi ci xeex. Euh, xëy na loolu tey am def na ay at. li fi jaaraat bëri na suñ demee bay doxaat seen combat pour ñu bëre. Euh, Tapha moom. fi mu nekk nii ah bëgg na moom pare na. pour joxe revanche Père Gaston de mi ngi naan est-ce que Bombardier nekkul ne daam lu muy ragal ci Tapha ah waaw bu dee am na lu muy ragal ba tey loolu li ma la wax la rek sëb la la ko mën nga ci biir waaye xam naa daal fañ jaaroon métti na moom. te Tapha Tine yóbbu woon ndam la. Mhm. waaw seen combat nag bu amaatee itam dana neex amateurs yi. am na solo waaw. Euh, bu ñu foofu ñu daal dem ci ki nga xam ne moo di Cheikh euh, Super waaw loolu moom loolu loolu moom loolu moom xam naa li ko indi mooy xam nga boo xoolee comme am ak capitaine dinaa bi sëñ Mudu ñaa tëggoon mhm. fan yële passé balaa ñoo woor mhm. ci la Euh, supporters yi doon dammi sees yi arène nationale ah, ba monde sportif yëpp ñaawlu ko mhm. moom mii ma doon bëri grand combat ba defe naa loolu ku nekk ñaawlu nga ko amoon na sax ay sanctions yu ci tukki woon dal ci ñoom bëri mhm. moom Cheikh Super Diamono ci la baloo mu ko waa écrim yemu ca def geste boo xam ne tamit après ñëpp dañ ko rafetlu ndax tooñ lu mu rëy rëy jéggal ma da ko yëpp doole mhm. ci la sol dal jéggulu yemu ca jël ay matériel am en tant que koo xam Euh, day liggéey ci yu mel noonu. Mhm. dem sees yi nga xam ne dañ leen daj woon yëpp dañ nekk ci biir arène ba ñu dajale leen. mu jël matériel am defar ko moom en tant que mbër. kon loolu acte bu rafet la mhm. kon bu nee mbëri du ñu ay dof effectivement mbëri moom dofuñu. Mhm. ndax koo xam ne bëgg nga kër gu rafet. Ah, bëgg soxna su mel ni Ami Diouf soxla 4-4. <laughs> buñ la nee dof nga te bu am compte bancaire ah. ku la jàppee dof tamit xëy na moom moo ah. xamul lan mooy dof waaye yow jege ñu am dof ah bien sûr <laughs> euh, mbooloo moo gis dina am ay rax yu ni ne Babacar nga xam ne mhm. seen am pecc du yem ci baara mbay mhm. dañ koy romb des dugg feneen xëy na ñu ñoo ci raxoon kere ba def loolu mhm. mais loolu kenn rafetlu waaye tey nag ah, journal bi dañoo am gan xam naa ci kanam tuuti day ñëw dinañ ci ñëw surprise lay doon waaw kooku day gande gande baax na <laughs> waaw am na solo ah, waaw waaw bu ñu jógee foofu nag li nga xam ne moo di drapeau chef de l'état fële ca Kaolack euh, mu am cinq lutteurs yoo xam ne Kaolack lañ dëkk ñu daal di leen sélectionné ki nga xam ne moo di Sele Mele daal di ci bokk waaw Sele Mele mooy Mamadou Moustapha Sène di mbëru campement ngee xoox kon moom région de Thiès sax la dëkk mhm. ndax suma juumul défendre na fii couleur rouge sont de Thiès ci drapeau chef de l'état mais comme drapeau chef de l'état nag mbëri moom euh, maanaam ku ci ne da jóge région bi dem région bi maanaam saaru transfert sax laa koy tudde boo bëggee dégg dëgg euh, Sélémé la tey bu ñu ko gisee région de Kaolack ah xam naa moom foofa la fas yi bëgg a bëre waa Kaolack tamit bëgg nañ mu bëre fa am na lu ko fa yóbbu général Malika gis nañ ko région de Fatick mooy seen pile de mooy seen cent drapeau de l'État bi commencé si jàmm jee si jàmm mais nag yàlla na ko région de Diourbel gañe ndax man Bawol laa dëkk. yaa lool waaw ah Bawol laa nee nga Amine bu <laughs> yàgg yow wax nga Amine bu yàgg yow yow sa ami njëriñ ne ah, moo tax mu baax yàlla na yàlla signé na ko ah, kon baax ñoo koy gañe bu soobee yàlla ah. yooyu les information suñu làmb ñoo ko fësaloon ñu daal di dem nag ci record lañ fa fekk rek Babacar moo di Paty Silla nekk nag coordinateur de Mo Gate hmm. ñoo moo daal di xamle ne. waaw 200 millions lañ teg pour un gala de lutte simple des VIP. lu doy waar 200 millions. président Paty ah moo ko seen yaram tàng na de. na de xam naa bi ñu ñëwee liñ taxawal ci ay combat lutte avec frappe bëri na. Hmm. ñu ne dit ne waaye ñu ne tey deux cent millions pour lutte simple pour VIP yi hmm. ah yàlla na am ak jàmm su ma nee am tamit lamb moom lu ci waaye def mérito na ko hmm. waaye li ma leen di wax rek lenn la est-ce que bu ñu tegee deux cent millions yi est-ce que dina Balla Gaye dina ngemb mbappat ah. est-ce que Modou Lo dina ngemb di mbappat si waaw fooguma ah. boole <laughs> parce que tamit dafa am euh, maanaam dafa am nit ñoo xam ne tamit hmm. tey Balla gay de Modou loo Tapha Tine Lac de Guiers Eumeu Sène Bombardier ñoom Gris maanaam ñooñu li ñu waroon def ci làmb pour man parce que def nañ ko waaw bien sûr parce que fi jaar ci xuslu ba tey yàlla dimbali bañ toll fi ñu am na yenn yoo xam ne ñoom duñ ko def balay caag ñu bàyyi ko seen ay rak mm-hmm. am na loo xam ne nag olof nag nee na mën ngaa wax loo mënul waaye def loo mënul daal dana xaw a jafe mm-hmm. loolu mooy problème bi waxuñu nag ne mën na ko teg mais est-ce bu ko tegee mbëri dinañ ñëw foofu laay waxee man ah, mbëri yi mu tudd yi ñu tuddee ay VIP te ñu leen est-ce que dinañ ñëw ngemb si nañ dañuy bëri si tamit ñooñu yaakaar naa ne tey fi leen làmb yóbbu mhm. ak li leen làmb terale yaakaar naa lool suñ ko naree def ñoom ñu bàyyi seen ay rakk yi ne ci seen écrit yi mhm. ñu dem bëri ji am dara te itam loolu la xel di gën a loolu la maanaam moo gën a ja neex a neex a loolu neex dégg moo get nag dañ koy ñaanal yàlla dugg seen bi mu dugg si ci làmb mhm. yàlla na ko réussir parce que tamit ñëw na taxawal na ay combat yoo xam ne ñëpp soxla woon nañ ko mbër yoo xam ne gëjoon nañoo bëri mu jox leen ay avance la ma fii maak Lamine ci plateau Arena Hebdo bi rek ak Bour Gueweul moo ci ne ñi nga xam ne ni daal ñoo ko dalal ah rawatina président Pathé ak ñi wër ñi nga xam ne ñoom ñoo wër structure moo get events boobu yëpp nañu fexe ba lii nga xam ne dugg na ci mu di ci génn ak jàmm parce que tamit bëgguñu kenn dugal sa xaalis mhm. di perte te itam kenn jël di ko sànni noonu di ko Ah. am na solo euh, balaa ñuy euh, pare rek damay daal di dugal annonce bi nga xam ne Gomis moo ñu ko xëy jox. Hmm. nekk caméraman fii nii ci kër gi moom nag dafa am benn dëkkandoom boo xam ne euh, dafa réer ku tudd Marème Ndiaye moom mi ngi dëkk foofu ca Gossas. Marème Ndiaye wala Mariama jàll non Marème Ndiaye. Marème Ndiaye Marème Ndiaye la tudd. Diallo Diallo la Ami Diouf. yow mais Marème Ndiaye lañ bind ci man de Gomis jàll la ma wax Gomis Diallo ok kon euh, Marème Diallo la tudd. moom daal euh, Gossas la dëkk mais euh, xel mi dafa xaw a suutarute. Eh, noonu la ñuy wax xel mee wérut quoi voilà xel mi neexul. daal ku ko gis ñu ngi lay ñaan rek nga dal di woote ci numéro yi nga xam ne moom la ñu war a jàllale muy 77 360 22 81 beneen numéro bi di 77 183 47 46 voilà moom Mariama Diallo ku ko gis rek jàppale ñu ci. waaw am na solo mhm. kooku yal na feeñ ak jàmm moom lañ daan instant ci revue bi mu mhm. mel ni kon daal numéro yi leer na naa nañ mhm. Mariama jàll di doomu Gossas ñu ci profité di nuyu waa Gossas yëpp yëpp yëpp waaw loolu moo fi li nga xam ne nii daal moo ci am solo voilà waaye nee naa la léegi kër gi tey dafa rax de waaw tey tey tey da am ñu gan ah. gan goo xam ne nag moom xam nga olof wala fa ko wax ku bokk ci gitt gi naan ci meew ndax maa moom dañoo miinante mm-hmm. muy suma rakk di suma xarit mm-hmm. wax dëgg yàlla parce que loolu la yàlla dogal mm-hmm. muy hmm? jamaïcain jamaïcain nga xam ne promoteur de lutte la moom tamit nekk xale ñëw si làmb di jéem gis nañ keroog lu mu def sa dimanche passé lu mu def Fatick drapeau mataar ba moom nu ko neex na ko duggee ndax fii këram la la ma ko waxoon rek kay taxaw ci digg bi kay dangay siif waaw kay <laughs> siifal dim leen deexe waaw <laughs> oh, jàmm. gënu <laughs> ma fee gàtt de. gënu <laughs> ah ma ah, xawma koo fi sut. man de maa ngi koo fi sut xanaa ami nga fi sut. nañu àtte. nañu àtte ñi ñuy seetaan kan moo fi gën a gàtt. natt ku gën a gàtt. ku gën a gàtt. de ma cee génnee. man damay sol ay coquette des fois ñu ne ma sumil coquette. ah man de. am na ko taxaw si table am na ko solul daal yu normal tamit de. sol de mooy ah, coow mais jàmm maa lay bëggee. Babs maa ngi lay fay di la ziar bu baax di la nayu di nuyu Ami. Ami Diouf waaw. di nuyu caméraman yi. Mhm. di nuyu waa Equivox yëpp. rawatina ñu ngi suivre ci. Equivox point com fépp fu waay mën a nekk rek. Mhm. ñu lay jaar Equivox TV kon. Mhm. am kontaan te nag ñëw fii tey. Mhm. ndax fii suñu kër dañ leen ñëw fekk ngeen def revue ñu siif leen. waaw seen borom waaw ndax maa a baax a baax di am contentement nag. tey ci seen daaneel nga yegg si. lu gàtt rek ami laa koy laaj defe naa ne. kera gis nañ la nga def Fatick drapeau Matar ba ahlu lamb yëpp wuyu si la stade bi seen seen fees dell macha allah mhm. nit ñëpp ñëw supporters yi amateuru lutte yi ñëpp ñëw mbër yi wuyu si ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi wuyu si promoteur yëpp wuyu si la mu nekkoon loo xam ne lu rafet rafet la euh, jam ginnaaw bés boobu loo ma ciy tënkal ak boo si jógee fan nga jëmaat waaw bés boobu li ma la siy tënkal rek mooy lu gàtt feccum liir bu neexee ndey ji moo jàpp ci mbagg ya mm-hmm. waaw bis bi tey bu demee ba mel noonu yéen da ngeen ci def liggéey bu am solo mention spéciale yow ak waa Equivox Lutte TV point com mm-hmm. Lamine sama xarit mm-hmm. mention spéciale sunu làmb xam nga coow li bëri woon na ci yàlla def xam nga ñu ñëw région jam production organisé ko am ci nag réussir total ndax ñun bi ñëwee ci làmb ba léegi dañuy décentraliser di jël làmb ji yóbbu Gambie bu yàlla defee ñu génn suñu suñu deuxième raison ndax ndar lañ njëkk a dem ñoo fa àndoon. <laughs> suñu dem Sénégal suñu demee Fatick. <laughs> suñu première journée. ñu def fa lu mel noonu dañuy sant yàlla. ndax yàlla nag am na lu mu ñuy dimbale ci làmb instant bu mu sa dem mm-hmm. def nañ fa loo xam marqué nañ fa suñu emploi loolu nag dañuy ñaan yàlla gën ko lawal mm-hmm. di kontaan ci kilifa yi fa teew yëpp monsieur le ministre Matar Ba mm-hmm. mention spéciale ak képp ku nekk ci gannaawam di ko jàppale di nuyu ñu fa teew promoteur association promoteur Fallou Ndiaye ñëwal leen Mor Mbaye di ko nuyu baax di wax suñu père Gaston Mbengue mention spéciale tamit gis naa ko Assane Ndiaye bawal jógee bawal nga xam ne moo tëgg samedi bi dimanche mu xëy topp yoon bi ñëw fekk foofu mm-hmm. Fatick di ko nuyu bu baax di nuyu directeur stade bi tamit mm-hmm. di nuyu waa CRC bi mm-hmm. lamb ji daal mention spéciale jógee nañ nag direction Gambie la tey loolu moo ma indi fii Gambie lu xew Gambie waaw ñëw jël si leen ngeen takk <laughs> <laughs> lu xew Gambie Gambie xam nañ ne combat bi fa àdduna yëpp doon xaar huit ans mm. bu nekk bëgg koo taxawal yàlla mm. jagleel ko jam production ñu taxawaloon ko nag depuis daaw moo waroon a am la 14 juin bii passé deux mille deux mille deux mille deux mille dix neuf bii. deux mille dix neuf la ñu waroon deux mille dix neuf deux mille vingt la ñu waroon a bëri deux mille vingt waaw waaw. corona tax mu ñëwaat ba le treize juin deux mille vingt et un si lañ jëm nag face à face bi mooy dimanche bi di ñëw. Mm-hmm. incha allah ndax bëgguñu toog di noppalu liggéey la nañ ci nekk rek weekend bu nekk jëm production dafa décidé pour def dara. ok bu ñu jógee Gambie bii face à face bi la 23. le 6 dañuy ñëwaat Kaolack ak l'exemple. Mm. le treize ñu delluwaat Gambie. ok ak combat mois de août ñu ñëwaat fii ci Baye Mandione xoyantaan. am na solo Babacar bàyyi dem booy dem di ma fi bàyyi amul benn problème takkal say daal rek bu la fi naree bàyyi sax man maa ngi maa ngi nii caméra yi laa soxla ndax Babacar olof dafa am lu muy wax nag. <laughs> waa Gambie moom xam nañ jam production. Mhm. dañ ne boo jàppee fukki xale duma leen. Mm. ñu gaañu. Mm. juróom-ñeent yi génn àdduna kenn ki faju ba wér. Mm. loo ko waxati dina ko gëm. Ah, loolu moom téere face bu nekk mus na fa am. Mm. làmb ju nekk mus na am Gàmbi. Mm. waaye dimanche incha allahu rabbi. axlu làmb Gàmbi ñu ngi may seetaan. dinañ gis lu ñu musul gis ci mm-hmm. am na solo dinañ musul dinañ gis lu ñu gis ci làmb Gàmbi. dëgg la ndax jam production moom bi mu ñëwee Gàmbi ba léegi day innové. yokk làmb. Mm-hmm. lu mu def dootu ko defaat. te bii dinañ gis dugg si bu am solo dinañ gis loo xam ne ci mbër yi. gis loo xam ne fi ñuy defee face à face Babacar. dañ naan lii fan la nekkoon ci làmb. dëgg la lay doon nag. incha allah ñëpp xam nañ ne High Pauline lañ lay High Pauline fu mu nekk si Gambie. mooy ñu demoon ca Baye Mandione Xoyantaan Johnson ah, Palmarima. ok xam nga Gambie place ba. face à laay def. waaw xam ndax dinaa fi toog. ticket. dara si la. Ah. VIP bi 200. 200. waaw ñu fa yéene ànd ak ñëpp nag. incha allah ngi nii ci yoon di waaj pour dem direction Gambie. Hmm. di wax waa Gambie képp kuy amateur fan sa club promoteur manager mbër hmm. ñëwul fekk ma High Pauline. ma wan leen ne pam du moromu mu du mën a ñàkk koo koy jam production kon Ami Diouf. am na solo. looy tëjee. dama fi dul toog rek damay def. di dem incha ah, <laughs> bu demul bu demul bu demul kenn dem face à face boobu ko jagleel koo xam ne champion la woon ci làmb Double hmm. Less. Hmm. Less Omar Seydi Kane ñu koy mu ah. woon papa boppam ba tekki ngembu. Hmm. Mhm. ñëw ubbi ay société di jàppale ndaw ñi. ndeysaan créé Seydi Kane bureau d'essence. Mhm. ak mhm. moom lañ dippee face à face bi doomu ndeyu Omar Thiam. ñu ngi koy ziar bu baax di wax ne face à face boobu moom ku ko tardé Babacar. noon non damay ñëw Gàmbi loolu moom amul ma dem. non man damay def kon buñ paree ñu def amul benn muskil loolu yàggatul waaw. di nuyu waa kër gi yëpp nag di wax ne uh-huh. séddale waa suñu kóol rek yéen. Uh-huh. yow suñu partenaire nga balaa. dara télé di am balaa làmb. Uh-huh. yàgg nañu xamante nañ seq nañ lu ne. <laughs> loolu moom téere la yaakaar def nga ci lu nekk waaye man rek maa la ci mos a daan. <laughs> daan bay dama soonoon rek loolu après lañ koy régler xam ab coono ma jàppoon rek dama koo gagné ci football rek <laughs> am na solo mu gagné ma ci bëree am na solo ami Diouf ko nekkoon euh, jamaïcain borom ah. Jams production mhm. fii la ñuy daal di yem yéen tey nag ci xibaar yi da leen dox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf <laughs>